show Guédiawaye info defal nice ak euh, Jojo doonatul loo xamante ni dañ la ciy laaj wala ñu ñëw di la ci poser question juste demain, on tendre le micro dans la cinquième édition nice time defal nice ban Wow waaw di am contenté Hein? parce que euh, c'est pas facile booy c'est toog nañ at boo par exemple ñoom joué wu ñu et tout nous sac la parce que l'ol c'est récent

capable def. Wa man damay wax parce que dama fekkee hein. tey jigéen dafa graaw tey mënoon nga wax ne du ma parce dama nekkoon defal nice mais teewul tey da nga ñëw def satisfaction mais bi nga koy def ñu gis li nga xamante ni moom nga joxe ci kaw saan bi ça montre quelque chose la moo waral lool la moo waral lool. waaw li waral lenn la. Lange sama papa la. Habib sama mag la du wëy moo ñu c'était avant wëy bi donc euh, mun naa wax ne du groupe c'est une famille que ma nekk ci biir que ma bañ ci nekk c'est une famille tu vois euh, du ñàkk nag yàlla moo xam li muy def te xëy na nii la mënoon a demee mais damay gis ne moo gën parce que ay nit bu ñuy ànd tamit ànd bi rek na dëgër leneen li lal importance tu vois ànd bi na dëggu nañ samay mag sama côté xewlee ñëw man tam suñu xewlee ñëw man du affaire de xew sax suñu xewlee maa xewlee ñoo donc voilà di ñaan jàmm parce que lay tu vois. souvenir. Merci Jojo et elle a une belle voix. Jojo je ne man daf parce que sama gaañ ne le sa doon mu ñew taxaw fini ak fi nga dégg li wax lay mais ne man ak ne Jojo ñu ne ma dañ ko lu dañ ko parce que way neex dañ ko bëgg carrière solo mais daf ma leer ne demain wala suba Jojo day retrouver wa defal nice Inshallah merci Jojo. merci à toi aussi.